ñoo ko tëggoon mu nekkoon combat bu neexoon euh, moom mu bokk ci mbër yi nga xam ne ci wàllu lutte avec Franc bi dañ ko ci nominé ci meilleur lutteur yi Franc moomu noo ko gisee muy xale boo xam ne macha allah mu ngi progressé ci lutte avec Franc amagu ci defet noo gisee taxawaayam ci làmb. waaw Franc c'est un grand champion. champion bu mag parce que nag. Mhm. lii tax a lii tax a nekk champion mi ngi koy def. Mhm. du daw adversaire mhm. te bu ñëwee day def ful ak fayda. Mhm. dana mobiliser. Mhm. li li promoteur bëgg amateur bëgg ko. Mhm. parce que tey li bon ci làmb mooy nga ñëw amateur yi la. te jàpp naa ne bokk nañ mbir yi nga amateur du leen jéppi. mosuñu ko jéppi. la day animé. ba làmb bu xasee bu bu sumee ko jeex day animé ba ni làmb jeex su ñëwee itam day wane fu la fayda lay woon dama lay daal. bu ñëwee loolu la wane wax dëgg yàlla mu nekk aussi xale. nekk ci ci laase ñaan rek mu gën a góorgóorlu bañ a bañ a topp succès ndax itam mbëri léegi pour daf daf leen daf leen gaaw yomb pour succès rëcc leen. maanaam mënuñoo gérer succès daal mënuñu ko gérer. ko gérer léegi parce que jamono jamono moo toll foofu. Hmm. mais nag succès dañ koy gérer. dañ koy gérer succès dañ a góorgóorlu combat ak Tyson 2 ñëpp a ngi xalaat naan bu xeexee du ko arrangé muñ ko gagné ci xeex. man de wax dëgg yàlla combat buñ ci kii itam franchement parle Tyson 2 daanul Franc moo doon bett moo hmm. euh, moo gën a nekk benn bu ma jumul Franc moo gën a xale ah. Franc moo gën a compétir Franc moo ëpp xaalis ci liñ ko mën a waxee bu ma nee ëpp xaalis nag dafa am fu ma ko def amul problème pour préparation combat ah. wala yooyu maanaam mu dem ci Babacar mu koy dimbali loolu mën na bañ am problème boobu ah, parce que lamb ji gañ na ay am dañuy am moyen seen yaram itam dana mandi gàllaaj dana mandi compte amul lenn lu ñu manqué te ñu ngi compétir kooku nag saas bi mu am munu mënu ko am te mën a xeex man a mën a xeex te booy xool katu doole mënoon ni mukk Tyson 2 dina ko ñëpp ëpp doole. ok mënoon Tyson 2 xeex kon fan lañ koy teg. <laughs> kon daal am na solo mais bi mu jógee ci loolu tamit keroog fekk naa ko ci këram parcelle mu talal ay loxo ay mbër bokk na ci Eumeu Sène la wax wax na Lac de Guiers wax na euh, Sa adversaire yi mu dëkk est ce que ay adversaire am lañu actuellement. Sa Thiès de adversaire am la. Sa Thiès adversaire am Sa Thiès moom mën nañu bëre. mook Franc waaw mook Franc mën nañu bëre. ah moom mën nañu bëre. mais rawante amu fa. ah non mais mën nañu bëre en tout cas. moo gën a logique daal ak ay amateurs ak ay Lac de Guiers ak ñeneen ak ñeneen. kon Sa Thiès Franc pour yow logique na. am na droit nag laaj leen. Mhm. am na droit nag laaj ñi ci kaw. Mhm. am na droit laaj leen de. waaw mais laaj taxul am. bu ñu dëgg jotee rek ñu wax. waaw dëgg combat ak Sa moo gën a yomb ñun la combat ak Eumeu Sène wala combat ki taxaw na. am na combat yoo xam na toog fee di mhm. Sa Thiès ak Franc. ak Franc waaye moo gën a yomb nga dem ci Eumeu ni ko sa combat ak ak ak ak gën a yomb non dama parce que xam nga euh, champion léegi yi fi nekk ci kaw nii ñoom dafa am benn benn problème bu ñu xaw am tuddi du ma ko jàppee xaw ma damay damay jàpp ni xëy na ragal ragal defeet la wala soxor la pour ñu mën a mañ ci kaw ji yéeg fekk leen foofu rek laa ko teg. ok maanaam soxor nga gis. wala wala ragal defeet wala ragal. parce que nag moom ak rëg-rëg na la wóor ni bis bu ñu yéegee kaw ña kaw yëpp am problème. Franc ak rëg-rëg ak rëg laa la wax. Mm. mënuñu leen bañ nag ci lenn mais dama jàpp ne ci cadre làmb yi rek dama jàpp ni combat am ak kii tey ji Sa tey ji moo doon gën a a taxawal mm-hmm. tey ji nga ni combat am ak Lac de nga ni combat ak Eumeu Sène waaw mën nañ na bëre mm-hmm. am na droit laaj leen mm-hmm. waaw parce comme grand contre dafa xew dafa xew itam ah ma ne leen a may seen mën na leen laaj daal mais ne moo gën a yomb du ma ni sax du ni sax may chance parce que ñoom it kenn ñaanuñu kenn parce dafa mbër moo xam tey mu ne ci tuus bi ñu bañ koo jël da koy ragal waaye kon may chance amatu muy def moom ay preuve di dem may chance amatu fi parce que li ngay indi la indi ci mbooloo wala wàllu gi kon may chance amagul ah, fi ñaata combat la def te mu ngi daan ak lu def li ba daan tay seen deux ah waaw kon kay kenn mëntu koo bañ ok digganteem ak soq combat la moom ak soq waaw booba combat ci mais avantage bi ci soq la soq ci avantage moo ci am hmm. ah, moo ci am avantage parce que boo daanee euh, Mm. Gamou Gueye. non non. Franc euh, la Tyson 2. nga daan nga daan kii ba pare. Tyson 2 nga daan Tyson 2 jëlaat kii dafa naa chance ba bëriwul. Mm-hmm. kenn moo jëpp avantage. ok waaw. Ah. Euh, soq ci yëpp avantage moo jëpp avantage. moo Gris 2 Franc Gris 2. Franc Gris 2 waaw parce que euh, Gris 2 tam ay adversaire bi du du yomb. lu tax moom itam bu mu man man moo tax de comment Abdou Diouf. Mm-hmm. bi ma ko déggee dama ni Gris même nañ ko mën a bu mu xool xaalis ok waaw bu bu bu mu xaal xaal parce que am na foo xam boo fa tolloo. Mhm. parce que gabar dem la. Mhm. ak it xëy na bëreegul ko ay combat lool ba mu ba ba certes ñenn ñi man ko man ko daan xam nga bu dee ci kaw. Mhm. dañu naan di mi mën na maa daan te nangam nangam. kon du ma ko jëlagum léegi wala nii nii na xam nga risque bi ci Reug Reug jël ñii ci kaw duñ ko jël. kenn du ko jël. léegi nag moom li jaadu ci moom rek man sawal bopp man bu ma ko yoreen tam combat du yàqu ci man. pour le moment nii combat du hmm. yàqu ci man. ngir yëpp sama kanam. waaw du yàqu ci man. lu ñëw nga jël lu ñëw ma jël. kon moog franc bu ko. dama ne la du yàqu ci man. Hmm. bu mag ak bu ndaw combat parce que lu ñu dox rek man dana ma bon avantage ci moom lay ëppee. ci li ma yaakaar. man en tout cas moo koy yor ñaari at yi wala ñetti at yi nii. Hmm. benn combat du ma rëcc. te dinaa fexe ba saison bu ñëwee dinaa bëri lu mu gàtt gàtt ñaari combat. lu ñaari combat. bu yàggee mag sa mag dañu daal di bokk adversaire. am benn avantage moom it bu am parce que moo gën nekk xale doon xale. dëgg la gis ci les arènes ñu ne moom ci espoir yi c'est le meilleur ren moom moo ci numéro un Thiat Daouda Fall bu Guédiawaye loolu loo ciy wax. waaw di ko di ko di ko di ko di ko di ko rafetlu di ko nangoo si parce que xale la. Hmm. doomu mbër la nekk rakku mbër. Hmm. mu am ay sans ay avantages yu bëree bëri. Hmm. parce que benn dangay nekk doomu mbër nekk magu mbër. bëgg ko si nangu ko tarbi jàng ko. kooku nag kon lu ne mën na ko ci am parce loolu mooy li li and gàmp parce que bu fekkee mm-hmm. la daan mm-hmm. ko defoo ci fu la fayda bëggu ko tam kenn la ci yóbbu mm-hmm. mais malheureusement xale la mi ngi ci yoon en tout cas bi ma ko gis daal dama ko ci gën a encouragé waat di ci a encouragé ay morom yar ak teggin surtout waaw xale bu nag loolu dafay nekk Euh, gàllaaju gàllaaj la gàllaaju xale waaw yar te booy léegi yi teel nañu yanu yanu <laughs> champion <laughs> waaw teel nañoo wane ak réewande <laughs> moo tax boo bari bari dañu tàkk rek fay eh, waaw tàkk rek fay parce que da laal tàkkal boobu lay doon danaan yëppit ne ne parce que laal ko wata laal parce làmb nag mm-hmm. mm. ay tuuri làmb am na de ay tuuri làmb am na ay màggi làmb am na am na ñoo xam ne làmb bul fexe ba ba laal leen dëgg la nag xale yi nañuy réglé am na solo loolu mu wax ci Thiat Daouda Fall defe naa ñu bëri seetlu nañ ko ci moom école de lutte Balla Gaye la ne ci géej waay waaye yaakaar naa ne ah macha allah xale la boo xam ne daal buñ ko nommé ren meilleur espoir tamit ci lutte avec frappe bi wane na ko parce que def na ñaari sortie ci journée wu daal ñu ngi tournoi bi daan ñaar yooyu yëpp te loolu li koy wane mooy xale bi ah avec la manière voilà parce que ki mu daan surtout yankaaw yankaaw du n'importe quoi parce que yankaaw dafa newoon ah, bi jóge fa ñu naan ñu koy naan ñu naan grand combat mu ñëw bokk ñum tournoi ñëpp xalaatoon ñu ne yankaaw ak ak ak nga xam ne caat daaw dafal bu ñu bëree yankaaw da koy daan mhm. mais xëy na boobu noon naa nañ tey ci xale bii ma gis mhm. parce que gis naa ko mu bëri ma gis ni mu sarawe ni mu dalee ak discipline bi ma toog fi plateau dalal leen yankaaw wax mu ne ko mën mën a bëri xëccoowuma ko mhm. mën a daan laay xëccoo voilà yaa ngi dégg mm-hmm. te keroog bu bis ba jotee dafa daan mm, albarka it dam gis nga mook moom combat ba mm-hmm. yàggul tawul mm-hmm. mu daan ko muy xale boo xam ne macha allah am na avenir u làmb trop ak yeneen xale yoo xam ne tamit nominé nañ leen foofu gis nañ fa ku mel ni Kaaw Gourdin ak yeneen xale muy mu mel tamit làmb ji am na espoir ak caatu yaraax tamit moom moo jël dafa bëree waaw caatu rëbës waaw non daa mën a bëree waaw Liss tamit bokk na ci looba boole nañ ko ca waaw Liss Ndiago tamit muy xale boo xam moom tamit ku jar bàyyi xel parce que am na mbool tamit mbooloo mi koy toppuñu ko mm-hmm. ngir ñàkk fayda mais li nga ci wax rek moo yal nañu yàlla dimbali daal ñuy am humilité ak dal loolu dafa baax si doomu aadama macha allah léegi damay ñëw ak yow ci loo xam tamit mbër a ko def muy loo xam ne volet social la muy Siteu di champion ba mag dëkk jàmm gën bërki dem samedi ñu ñu demoon fa te samedi bu le passé la ko njëkk a def jënd ay moto pompe pour mbënn mi jox ko ay quartier rawatina jàmm gën gëm soqe ko waaye wër secteur yi ko wër yëpp joxe ko fa ñu dit waaye samedi bi passé mu dolliwaat ko moo toppam i mujj amaat bi pass sax mu ëpp doole ya mu amoon loolu yow en tant que acteur u làmb loo ciy wax parce que image yooyu defe naa ne ku ne gis na ko ci Equivox waaw Siteu d'abord euh, waxuma sax rafetlu guñ koy rafetlu mhm. mais da koy rafetlu ci communication waxuma sax avant muy def loolu mhm. mais communication mhm. dafa ma a wax benn wax bu ma marqué ci ci ci ban mbër laa ko doon dégg bu ma jubalee muy wax fi mu jaar ak Max Siteu parce que Babacar gis nga àdduna ngor daf ci bokk ak dafay ñëw ba léegi li ñuy wax ci xale yi léegi nii buñ demee fenn buñ bañ a topp succès bañ a topp succès ba fàtte ñi nga xam ni mhm. am na temps kenn xamu la xamula Babacar xamula Sawru mhm. xamula kenn la mu ñëw ci Babacar sama booy bi nangam nangam wax mhm. parce que lool euh, loolu sax day day jaar ma arrêté tuuti ci côté ménagement bi ñu doon gis nga ménager rolam dëgg-dëgg mooy mbër mi nga xam ne dañ koy jox kenn xamagu ko bu fexe ba produit ba mu jóg bu demee ba jóg moom boppam loolu la ñu bari jaawale bu yeggee fenn fi daal jërëjëf xëccoo ak coow. sama maître Jacques Guène daf ko wax ba ci démb. Mm-hmm. Euh, ma ne émission Jacques bi ñu bari war nañ ko déggaat. waajee ko teg war na ko tegaat télévision ba ñu bari déggaat ba ñu bari seen bopp ubbeeku ci lan mooy côté ménagement. ménagement mm-hmm. xale bi nga xam kenn xamagu mm-hmm. mais boo xasee ba fenn fi. mbër mi yaa am sa bopp. foofu la ñu bari jarul xëccoo daal mbër mi sax d' abord ménage wutalu combat. waaw moom wutalu boppam combat waaw. xam nga ku mel ni waaw mu la ah, Balla Gaye de kenn du ko wutal combat kenn du ko wutal combat nañuy <laughs> ah, nañuy ràññale <laughs> yooyu euh, mu ñëwaat bari si te wax ci wax vraiment wax boo xam ne damay xóor ni kii te wax booba dañul ci moom booba léegi mhm. dañul ci moom mhm. euh, ñu di ko encouragé li mu def nag du moom te moom boo xoolee da nga naan xale la mhm. la ca gën nag mooy baax te lii lu baax ay mag lay déglu parce que nag li mu def réew mi la ko defal defalu ko jàmm gën defalu ko lamsar déedéet ñu koy ñaan yàlla suñu borom mu gën ko yomb tey it nag lu baax foo ko defee. Mhm. doo ko rëccu. di nga gis sax ku la ku la ku la ku la soppul woon. waaw sopp ñëw ñaanal la. mu dal la moo tax mhm. gis nga xale. Mhm. gàllaajam rek mooy yaru. yaru yaru rek mooy si gàllaaj. foo ko defee bul tiit. dëgg waaye heure boo bu la wóoree ñoom mi dem nga ba gis sa bopp. tiital sa bopp. sa àdduna moom bul jàpp ni mukk dana àgg te lii sawru la te jàppal li ma la wax te xoolal xale yi gis seen bopp ci làmb te loolu loolu yoo ma vérifié la nag mhm. xoolal ñi ci yaru mhm. am na fañ dem mhm. nga xool ku mel Yaxya Jóob Yékini bi mu ñëwee tey ji defe naa bëri na ba ba ba doon lim doon kenn musu koo gis luñ koy xeebe busul wax luñ naan acca ba defal ko lim def Mohamed Ndao Tyson Mohamed Ndao Tyson noonu exemple man nag damay sama sama rakk yi ak sama doom dama leen di wax doole doole bi yar daf ci bokk tey am coloré liper bi Birame di wax nu ñu bàyyi wor ñu bàyyi wor tey am coloré mhm. beneen boobu mooy ñu gën a yërëmaat promoteur yii ñuy digganteel koo ci digganteel promoteur mu jox la xaalisam mhm. boo demee ba nga xam métti métti am na mhm. xalaatal sa bopp waaye xalaatal promoteur bi jox xaalisam ah, promoteur bi jël xaalisam jox waaye waaye xale yi dañu xewal yoo xam ni du ngor te ku ko ci def carrière nga bëgg doo dem wor baaxut nit da ngay sàmm sa kàddu kàddu gën loo ma gis ci àdduna kàddu moo gis loo am ci àdduna nañuy fonk respecté promoteurs yi. waaw hmm. ah, promoteurs yi man bëgg naa trop ñu la respecté. parce que ñoom ñoo joxe combat yi ñoo joxe xaalis bi ñoo joxe xaalis te xamoo fu ñu seen xaalis. te dañ koy jox toog waaye promoteurs ba te ko koy jox mën naa am sax yow ba mu la ko jox dëbuwul sax pour sa combat. Hmm. yow yaa dem pour ñëw ba ci moom. Hmm. bëgg mu jox la combat bëgg mu jox la combat mu jox la combat cool cool am tuuti. nga bëgg a taxaw fële mel ni woon loolu baaxul war la. war na ku ko def da nga ko gis. am na solo nañu moytu façon yooyu. yal nañu yàlla musal ci war. léegi fi may jaaxal ak yow mooy écrit Ndakaaru fi fusionné maanaam fusionné nañ ko écrit Fass ñu ànd yow nga nekkoon écrit Ndakaaru yow ak Amadou Kati ngeen doon écrit bi. yow nga ne ci côté management bi yow ak commune Mbaye Diagne ak ñooñu mais yow bi loolu amee biñ siiwalee maanaam ne Fass ak Ndakaaru dañuy fusionné yow da nga euh, euh, maanaam daal àndoo ci loolu lan moo tax. waaw Babacar wax dëgg yàlla loolu bëggatuma ci bëggatuma ci woon di ci wax di ci sori maanaam la ma ci waroon maanaam la ma doon def mhm. parce que loolu du loo xam ni mhm. luñ cay wax la mhm. loolu lu ñu jëf la ok jëf nañu gisuma sama bopp ma def ci dem ci li ma gis sama bopp seq ak ñi ma ko seqal ak jàmm ak salaam jàmm ñooy vraiment côté boobu bëgguma sax di ci sori di ci wax waaw bëgguma di ci sori di ci wax parce que loolu euh, amul amul problème ku ne def la nga gis daal man daal def naa li ma jàpp naa tey loolu mooy responsabilité xale yet ñëw am joxe ànd nañoo ak man. Mhm. ma ànd ñoom nekk Colobane Mbolo. Mhm. Colobane Mbolo ngeen Colobane Mbolo. waaw xale yi ne woon foofu yëpp ñu ngi foofu ci man. ok waaye nag. ñoom tonnerre rek eh, ñëpp ñu ngi man à part Sibel ak Ndoof bu ma juumalee ak eh, Volcan. ñoom ñi rek ñoo ànd ak sa kati eh, dem Dakar dem Fass. booy xale yëpp moom ñu ngi Colobane Mbolo. waaye côté boobu dafa bëgguma ci. bugguma di ci waxaat parce que comme ñoom ñu ngi ci liñ ne maa ngi ci li ma ne ma ñaan yàlla suñu borom yàlla jàppale ma mhm. ndax tey Fass man falaa falaa falaa démarré mën naa ni man supporter Moustapha Gueye laa woon chaque jour ma ah. man supporter Moustapha laa woon chaque jour ma wax ko sama papa supporter Mbaye Gueye la woon sama papa supporter mbay Gueye la woon fu ñu ma éetee wax naa ko avant lii xew wax naa ko fu ne mhm. nëbbu ma ko ku yàlla bind sama papa ndar la daan jóge bu Mbaye Gueye di bëri ñëw fanaan seetaan mbay gi mu bëri ba pare mu jëlaat oto bi ñibbiwaat ndar. ñibbi seen man ma ñëw fii yàlla boole ak Amadou Kati Diop ak ñoom seex Cheikh ba ak ndem si yàlla Gambi Kayta. te boobu ñoom ñu ngi faas. ñu ngi faas ma nekk supporter Moustapha Gueye. mooy bi Kati di entraîné pour Moustapha Gueye. waaw ñu bokk na nekk faas. Cheikh Mbaba nekk faas ma nekk supporter ak Gambi Kayta ñu ngi décor di 45 angle 30. duubal saan gembo suñu wetu kër foofu fa lañ daal regroupé supporter yi chaque dimanche ñoo ngi daan ñoo ñëw kër jaraaf ñun supporter yu mag yi ñu nag ñoom Mamadou Gueye Mame Gour Fall supporter yu mag yi yu mag yi laa wax nag waxuma supporter léegi yi ñu dajale Tapha Gueye parce que loolu man ne ci loolu la daan ngemboo mm-hmm. man supporter du Fass bu mag a mag bu supporter Tapha Gueye laa woon mag a mag wax naa ko fenn fu ne pour mu leer mm-hmm. keneen ku ne xam ne ëllëg bu looy wax nga xam ni sawru bi supporter Fass la woon lépp ku yàlla bind moom la woon moom la papam doonoon mm-hmm. waaye nag àdduna day dox àdduna mooy dox kon nañ seq jàmm rafetal jàmm man fa samay xarit doo nga fa ne Ibrahima Mbaye sàng la mujjee woon man mi ngi nii Touba euh, ba beneen bi ci gën a doy waat Babacar man ne la foofu li lay xamal ne côté boobu am problème amu ci Ibrahima Mbaye doomam ji sukk jur moom doomu boppam man maa ko yore man la ko jox yaay ménagé doomam man maa ko yore mooy xale bi mujjee bëri te ni mbooloo mu bëri man maa ko yore de waay nga xam ni c'est que nit ñi. des fois am. des fois non man doo ja non jafe-jafe fu muy amee. mënu faa am ndax xale ah. boobu macha gis naa ko keroog mu bëri indi mbooloo mu doy waar. xam nga loolu loolu kon. coloré mhm. euh, la. Mm, te Ibrahima Mbaye moom mooy mënaat say face. Ibrahima Mbaye tey boo demoon ne xale bi combat la da wax ne man sama yoon ñëw ci. demal ci Sow moo koy rek du ci wax du ci dindi. loolu cër pour leeralal la benn benn point boobu bu gën a tuuti foofu rek nga wax man ñoom ñëpp sama buuba Thiaw sama xarit ma la hmm. moom sax am na lu ma koy tooñee am na foo xëy bëgg naa faa dugal tey bañ nag mais fa dugal man ñu bari ñu hmm. kanam am na solo waaw euh, Sawru macha allah waxtaan bi am na solo trop trop trop euh, tey euh, looy tàggatoo waaye sawru ku ne xam ne tamit réew mi metti na fi mu nekk nii daara yi yokku na maanaam li ñuy dunde yokku na loolu tamit di lu méttee méttee ci njaboot yi ak boroom kër yi loolu tamit moom laa lay mujj mujj laaj nga jaare fi tàggu ñi nga xam ne ñoom ñoo si ma la waxee dëgg itam ci làmb mm-hmm. ren mm-hmm. am naa ci déception boo xam ne ci làmb musuma ko am sama dund ban déception nga si am non xëy na du lu may wax ma yow sama xarit mën naa ko junj nii mm-hmm. ci làmb ren Mm. barke Seexul Xadim desab sum sama dund mosuma ko am ci ci sama dund laa am rek mbëre la ko teg làmb promoteur amateur wala ci làmb ci làmb rek laa am Sénégal rek déception am na loo xam ne ci mbër la lii ci nangam la lii ci nangam ay déception ñu am ci làmb ñu ma ci am doy na waar ma mun ma ko wax nag mais mosuma dal sama àdduna mais romb naa ko jàll na pare naa ci yàlla bu mu amati kon amiin yàlla bu mu amati en tout cas di la gërëmaat yow tam. Ah, ah. di gërëma sa tëgg say vraiment di rafetlu invitation bi. merci beaucoup. Euh, di wax rek lu ñu fi wax loo xam ni euh, jàpp na ni dañu kii rek ñu xam ni xëy na juumte la. Mhm. waaye li ñu bëgg rek mooy yéenay wax lu rafet. Mhm. ñu gën a góorgóorluwaat ci làmb ji gën koo sàmm. Mhm. gën koo sàmm gën di waxtaan. nañ gën di waxtaan rek waxtaan bi su dee bari. gaa ànd gi mënta nekk mais buñu diggante di waxtaan rek mhm. ah, danañ xool buntu bu buñ jaar ba potoxlu fa rek ba làmb xam avancé tuuti gis yoon waaw baax waaye nag gis ko ànd ci ñëpp doxandoo ci yoon yi moom mhm. jàpp ma ne mën naa nekk mën amee nag mooy li gën moo gën ñu ñëwaat léegi am na solo waaye nañuy gën di waxtaan rek macha allah kon koo koy Saourou Fall kon mbokk yéen ñu doon suivre direct ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah di leen ñaanal jàmm di ko sàkku Arena Hebdo ay ñaari invité la amoon ay manager nag laa amoon tey mais malheureusement kenn ki ñëwul muy suñu papa Bourkhane Wade mu koy nuyu di ko ziar moom it di suma père ku baax a baax mu yore Boy Niang hmm? école de lutte Boy Niang bu tegool bu Pikine moom mooy manager yore ay mbër yu bëri moom tamit nekk koo xam ne tamit exemple la ci côté management ma ciy profité rek di nuyu manager yëpp parce que tey Saourou Fall bu fi teewee teewal na fi bureau manager yëpp ah muy nuyu seen njiit di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ci bureau bi mais di nuyu tamit ahlu làmb yëpp ku ci nekk rek yaa koy déggee noonu xëy na nag ànd na na mënta am d'accord waaye su amee moo gën li gën nag kon est duñ ko jéem a def ñu ngi koy defee loolu mooy wax ji doon ke nag xalaat yi moom mënta doon benn yaa ngi dégg euh, xalaat moom parce que kuy day gis lii kii gis la ca des waaye àdduna mu tëddee noonu yaa ngi dégg mais li am solo rek nañu yéneente jàmm te di ko ñaanalante te di ko waxante te itam lal dëgg suñu ay diggante rek ah bañ ji yàqalante loolu moom amul benn njariñ ci côté bu mu mën a doon nag yàlla na yàlla def jàmm Sénégal di bëggee technicien yépp yi newoon ci ginnaaw caméra yi tund naa leen bi ñuy ubbi hélas Balde Xulle Habib yàlla na yàlla def jàmm di bëgg si ñëpp waaye tamit encore une fois di nuyu suma xarit bi suma doomu ndey ah borom Dubaay gis nga téléphone bu seer bi ma indil ah Samsung bu seer a seer a seer yàlla na jàmm yàgg ah gars yi kon euh, di wax ka ni rek. noonu la fa demee woon maa ngi koy bëgg bu baax a baax ne na mu bu ma tudd turam parce que mungul ma tudd turam waaye loo ci mën a dégg daal yàlla na sa jàmm yàgg Awa Diop Touba maa ngi lay nuyu di nuyu soxna Asi depuis Nouakchott di nuyu Khady Rose ñoom ñëpp ah waa Afrique du Sud Dame Diop maa ngi lay nuyu di nuyu waa Afrique du Sud yëpp yëpp bu naama borom Maroc maa ngi lay bëgg yow tamit di nuy képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre groupe baax tamit du ma leen fàtte Awa Diop hmm, président Massamba Dieng Sora Malick Issa Issa bu ëmma seen nag dafa am lu metti ko dal mu naqari ma trop parce que dañ ko agressé te Issa ña ko agressé ca la mu waxee ne na ay mbër la bañ leen yóbbu commissariat te loolu ñaaw na trop ndax Issa bu Eumeu seen defe naa tey biñ koy may jabar Eumeu seen sol na dàllam ñëw ba ca jàkka ja toog kon la preuve loolu moo lay wan ne am na lu mu defal làmb am na lu mu defal waa Pikine Boy Niang du ko weddi Ama du ko weddi rawatina Eumeu Sène bañ ko woowee Issa bu Eumeu Sène mu yore liggéeyam yore soxnaam yore këram di góorgóorlu kon defe naa ñi def loolu def nañu lu ñaaw agression nag am njariñ li ko gën a wóor mooy dem utiloo am xuslu ji liggéeyi loola yàlla mooy nga tëdd ci sa ngor loolu moo ëpp solo kon loolu ñu ngi koy ñaawlu di bokk ak moom tiis boobu di ko massaw moom isa bu ëma seen ndax suñu rakk la suñu xarit la taalibi la nit ku baax la ku nangoo dóor waar la di ci profité nuyu groupe baax yépp ah Lamine bu ëma seen du ko fàtte booy ëma ñoom supporter ëma seen yëpp maa ngi leen di bégee ah. Ali bu euh, Ama ñoom ñëpp du ma leen fàtte ah ak Elaz parisien bi maa ngi lay bëgg Elaz bu Ama di nuyu waa Pikine tey parce que Isa moo tax parce que la preuve loolu ko dal du lu ñu gënal mais nag àddina moo tëdd noonu di di wax que ni jàmm yàlla na yàgg Sénégal